mbokk internetu Lerufisquois TV daleen ak jàmm groupe de presse bii di dee média defoon ab recours jëmale ko ci waa CNRA waa cour suprême dàq na li ni mel bu ñu ko ay fan ci ginnaaw ñi nga xamante ne nii ñoo di waa CNRA dañoo daggoon ay fiili waa Sen ak waa Zik FM ci ginnaaw si loolu si la seen njiit lii di Bougane Gueye Dany defee ab requête jëmale ko ci ñoom waaye mu mel ni waa cour suprême dañoo dàq li ni mel. mbër mii di wuyoo ci turu gaax mi de nag ga gendarmerie bu Kër Massar teg na ko loxo li waral li ni mel nag du lenn lu dul dañoo jàpp ne dafa am ay cambriolage yu mu def ak ay njuuj njaaj fële ca Louga ab accident bu metti moo fa am ci diggante ñoom rek ak Naayoobe ñaari oto ñoo fa mbëkkante ba kenn nit jot caa ñàkk bakkanam am ñeent nit yu fa amee ay gaañu gaañu ñu metti ñoom ñooñu leen ñëpp sax jot nañ leen yóbbu ca hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga